ci li nga xam ne mooy la solution mi ngi en face wal fajiri tey mooy dernier numéro bi nga xam ne ku tey rëcci après tabaski ngay mën a jënd si ci boutique bi am nañu ndoxum siti ndoxum siti mu baax soxna bu profitool si tabaski gii hmm. nga ñëw jënd sa ndoxum siti yóbbaale ko hmm. soo àggee soxna si defaral la ko nga jaaxaan par minute nga ne ko xel jox ma ma naan bu soobee yàlla balaa tabaski gee jaar minute saa yoo maree rek naan nga naan par minute xam nga yow li ngay waxatee ngi nii léegi bu nit ki toogee minute nga nekk ma loolu bu Assane xam nga Assane ab explication moo tax bu njëkk mën la explication garab yi na ci génn waaw léegi mu génn ci parce que kii ci caaxaan la de parce que Assane yaa fi moo fi doon topp nit ñaa leen heure bu la neexee rek mëqal waaw xam nga lu mu daan wax xam mu daan wax boo reeree ma na koo xam ni vingt lay reer tëdd vingt trois léegi ko nga si diggante bi amee mais déedéet Assane bàyyil boo reeree affaire dafa am ay norme nu ñu koy jëlee mais soo maree naan la man lu ñu ma sa jël si fii bu amee conteste man est-ce que kii expliqué leen ah hélas du soo maree naan siti bi siti bi waaw saa yoo maree waaw loolu la waaw mais une minute bu ne nga wax <laughs> une minute bu ne waaw loolu kii la rek ñaam baas yàpp sir looy dox di ñambaas boo <laughs> wax rek ni mu demee. waaw ah. mbirum kii jarul ñambaas waxal ni mu demee rek. kon daal mu ngi noonu. yéen ñi profité leen ngeen jël ko it seen soxna mu defaralee leen ko saa boo ni ko xel jox ma naan mu xel jox la nga naan. d'accord bu soobee yàlla balaa tabaski gee jeex si carte na sunu borom mën ngaa tàggoog moom. d'accord hmm. euh, ñu dem ci li nga xam ni moom mooy hémorroïde. hémorroïde bu lay faj si biir ak si biti ñëwal nga jël ko yóbbaale yóbbaale sa soxna si carte na sunu borom balaa tabaski gee dana saafarawu estomac estomac bu baax soxna bu yow mi nga xamante ni yaa ngi tabaski ji ñëwal nga jënd ko yóbbaale ko soo àggee joxal sa soxna mu defaral la ko nee naa la lakkal na nga indi mu tàdd kaani poobar soble yëpp def ko ci lakk bi nga jaxase ko jox ko kaas mu naan nga jox ko mu lekk toog xool jàmm rek day am ci kàrt na sunu borom yóbbaale leen ko ci tabaski gi baax na ci xar mi lool ak lu gerees gi bari bari du la yëngal asma asma it bu baax jëwal nga jël si ko nga yóbbaale ko ndax xam nga ne bu ñuy lakk saxaar si day gëralali si kër kër gi fekk na taal nga sa cuuraay mais loolu lépp du si dara yokkal sa gaas na saxaar duggal si néeg bi cuuraay li na gilli na saxaar fekk na yow jël nga ko yaa ngi si biir néeg bi du la def dara bu ñu dugg si néeg bi dinañ lañ la làmbatu sax <laughs> si carte nu sunu borom asma bi du yëngutu balab ma balab ma yow mi nga xamante ni yaa ngi demit ñëwal nga jël si ko sa soxna si defaral la ko na teg soow soow bu mag bu mag yi siwo yi mag yi na ko teg na teg euh, li nga xamante ni mooy boisson yi waaye na teg xar mi lu mu duuf duuf jëlal nga lekk di naan si soow mi di lekk si beñe beeg fataaye yi dara du la ko def si kàttanu suñu borom ndax développement moom ñoo si man te ñoo si gën a aay te def gis la alaaj ñëwal alaaj nii la demee ah. yaa santaane ñu jël ci soow mi. Euh, fataay yëpp dara nekk ci ko euh, tabaski gi moom <laughs> tabaski gi dara bett tabaski gi fataay. xanaa yaa ko santaane. xanaa ko xaram daw xar xar daw la la xar ma asan fataay. moom asan <laughs> fataay ni mu ko waxee moom sooy bu ko kenn defee nii. Ah! fataay moom ci caaxaan rek la de. non alaas déedéet du noonu <coughs> dimbali ñu Assane wax naa la sax nee na heure bàyyi garab yi ngay caaxaanee ah. <laughs> wax nga dëgg da koy caaxaanee ah. ay ah. li nga xam ne moom mooy raay mu sedd raay mu sedd guy yow mi tabaski ñëwal nga jënd si yéetaale sa soxna mm. ak sa yaay ak sa maam <laughs> ñëwal bu àggee diw ko <laughs> nga diw ko waaw frotte leen ba mu tooy si kàttanu sunu borom boo xëyee waa ñëwal ci yow fajar la jóg di bale kër gi autoroute autoroute lépp loo xam ne war naa yokk ñëwal nga jël si ko mhm. soo àggee joxe soxna si mu forooteel la ko bu fekkee ne lu war a yokk la soxna si dana la wax ne yokk na bu fekkee warut a yokk dana la wax carrément lii nii la war a mel d'accord mais bu la leeree ni lii warut a yokk du yokk néew kàttan bu la leeree ne mën naa yokk nag ñëwal dana yokk si kàttanu sunu borom néew kooku nag mooy erreur bi nga xamante ni def nga ko yow mii dem tabaski ji te yóbbaale woo ko bàcc mu leer bi mm. erreur bu toll noonu musoo koo def yow miy dem te yóbbaale woo ko mm. foo mën a nekk fexeel nga am bàcc mu leer tey tey ndax tey la ñuy tëj mm. nga wax ñu yónnee la ko foo nekk dëkk boo nekk mën na faa dem ci quatorze régions yi ci quarante six départements yi waaye bu tey weesoo doo ko mën a am kon ñëwal nga fexe ko am tey ci carte nu sunu borom tabaski bàcc mi waaye de am na benn ustaas bu ne bisub kenn du ci bàcc ndax deret ji tuuru ko teg ah waxoon na ko de waaye léegi yow bala ñoo tuur de maam bis Tabaski boo ñëwee si fajar boo ñëwee si fajar gi bala ngaa def dara jël ko si fajar gi booy teg saag bi rek jëlal bala ngaa summee ko bay sangu ba pare insha allahu bi nga bàcci ba bët set nga sanguwaat dem jumaa ji julli ji boo ñëwee ban rey ba ngoon gi nag nga nga jëlal après su suba gi naa neen deret ji bu tuuroo wuroo bàcc ab ustaas ko wax bàyyi naa la loolu nga nga lijjanti ko seen yeneen ustaas après ñu jox ko xaarim sàmb ci man xata la ñu dem ci li nga xam ne mooy karaw karaw gi yow mi nga xamante ni yaa war a dem julli ji ñëwal nga jëlaale yóbbaale ko sa soxna sëri ca bu soobee yàlla diggante ba nga fa nekk bala ngaa jógee danga dana neex a xool te xam nga ni fee sa Tuubaa Mbàkke bu fekkee ne sa karaw da nga koy boo leen séenee Baay Faal yi ñëw yëlëb ko bañ xam ne karaw la ndax dana liis dana rafet mais boo tegee dara mën nañ laa wat te bala ngaa amaat karaw dana yàgg hmm. mais ñëwal nga jël ko nga gànnaayoo ko képp ku ñu wat sa soxna nga jox ko ko mu diwaat ko melaat na meloon ndax tout moment mën nañoo wat sa soxna foofu si dëkk bu sedd bi ngeen xamee ko noonu ngeen bàyyi gerafaas bi ngeen bàyyi petite tête yi yooyu yëpp ngeen ba ko ak yooyu ñuy këpp na natareer ngeen musóoru musóor yu jekk te yóbbaale di denc ko bu ñu watee seen soxna ngeen jox ko mu diwaat mu ñëwaat. d'accord ñoo ngi nuyu Xaarim Samb. ah ñu ngi koy fay bu baax. ñu ngi koy nuyu. Mhm. Euh, léegi nag euh, voilà kon mbokk yi Assane wax lépp ñoo ngi en face wala Euh, numéro yaa ngi noonu di daw ci bàyyi écran bi bu dee Sénégal la 75 449 23 euh, 630 bopp 50 50 75 630 50 50 wala 78 426 66 77 soo xoolee ci bàyyi écran mi ngi fii bu dee fii ci Sénégal nag moom tey la njaay mi arrêté 16h30 bu ñu arrêté tey altine incha allah euh, bële di ñëw la ñuy ubbiwaat. ñu ngi en face wal fajiri ku taayi dikk Assane wax na la ko boo defee sa commande dëkk boo nekk dina la fa fekk bu ànd ak borom bi bu dee bitim réew nag moom ñoom ñoo xam seen cëggal guy naka la ñuy kiyee hmm. yaa ngi noonu bépp réew boo ci soxla rek incha allah euh, da nga ko mën na am